day am ruu naaw bu dee fen day rot waaw te ñoom dañ leen defal kastu sooy waxtaan ak ñoom di fen dañu janoog baat yi rot am na ñoo xam ne booy waxtaan ak ñoom déglu toog te déglu alwaaqi baat boo wax bu dee dëgg day am roxoon naaw bu dee kan day rot ci suuf léeg-léeg ngay waxtaan ak nit ki yàlla ku denc yow ndax day def baat bu génn rek ne but baat bu génn rek ne but boo ne patt waxu la sa xalaat di ko xeeñ ñi cin lu ñu tànn sori leen rekk gën sori leen rekk gën aka neexoon dégg naa li nga wax da ngay fàttali ba muy laaj yaayam dégg na aka neexoon bés bu ngay génnee ma fekk ko na bi dégg si na ko aw muxrijiyahum dinañ ma génnee man ma ne ko waaw doom neexul waaye dañ la génne li nga làmboo kenn musu koo làmbu dugg ci bokkam te bañuñu ko waaye mu dal na ko guddi gañ ko complot muy samedi fukki fan ak benn ci weeru gàmm ñu ne daal suñu dernier pexe ngi bu riccee tey musibaam booba poson nañ ko mënuñ ci dara jibar nañ ko mënuñ ci dara lu xat saaxaroo waaye ndeysaan fa safa bihi tabibul atibai wal ilahu wakilu lam yabili ci alaaji malik wax rasulullah waxu ko ci fenn ki la sabbe xew rek ñu jàpp ci waaye billahi lam yabbi ñu mu ci tege ne bi cër par cër ba mu àgg mu jël saaba yi noonu néew na téere bu mu ci bu mu ci digge noonu xat gi taqiq la du taqrib du taqlil du taksir du tawqiq xatug taqiq la wa qasaaru xaj maa liggéey wax walaay jabaroo nañu ñoom yawut yépp ak Quraysh yi xayral waraa ngeen ji mbindeef waaye nañu mujj biñ ko posonee mënuñoo réussir ñu gate paa ko mënuñu ko ñu tëru ko mënuñu ko ñu dog ñu dogoo moom ñetti at la ñuy wut doxuñu dañu oo ku ñu wax lëbiit ñu saraq ne ko yow ñu mën ñu mën ñu mën jibar lañu te waa ji tënu dañu bëgg ku nu ko jëfee rek la yàq ko mu dee mbaa xel mi yàq mu laaj leen cotisation ñu cotiser li bi door ak genn wàlla jox ko mu ne dina jafeñ na fexe leen bi indil ma jaratu bu muy jaratoo xëy peñe ba dama leen ci ñetti bëñ indil ma tuuti lu bokk ci kawaram laa ko liggéey moo tax téere yi dañu bëgg soo dogee sa kawar nga daggaat ko dóor ko suuli soo dogee sa wee daggaat ko ndax bu ñu maarilee rek ku la liggéey te xam yoon gaañ la ba dalaka laa xayr jërëjëf waxar saxaru jibar nañu ba jekkoo xayrul wara yooyu teer ci géej di def ñaari coup di niroog liy sëq tontóori tàndarma moom la ñu wut fab sif su bari def jëmmi njool màkk ba boo xoolee statut bi defe naa rasulaay jëbi kawar gi noppi ciiñ yi ut genn pas fas ko fukki pas-pas ak benn yeew ko ca bopp ba fab fukki pusoog benn jam ko ca fàlle ga mu laal ca siif ba ñu jëm ci ban sowaan benn teen la duum ba ca taat la yëkkati maati ba dafa am teen bu nekk dafa am xeer wuy ne ci suuf pour buñ koy wax ak xeer wuy ne ca kaw pour bu ñuy génne moom la ñu yëkkati rof ca teen njool maa ko toog di jeex rek di miis rek te dara métiwu ko di miis di soppeeku it di ci boole dem na ba léeg-léeg mu defe ne Diouf lay wax ak te mu ngi wax ak Ousseynou dem na ba mënatu la digaale kenn ku muy denc bés rek bëccëg mu tëdd nii mel ni kuy nelaw Jibril ñëw tiim ko ànd ak Mikaayil naka yow si waaju lu ko jot mu ne ko dañ ko liggéey liggéey waaw ku ko liggéey mu ne ko la bidd mu ngi ko def ca teen na nga bi mel ni ku ciy jóg naka la ñàkk ne ana suba yu ari yin laga leen ba alsoobaam ngeen wàqi ko bu ngeen ko wàqatee ngeen yëkkati xeer wa ci suuf di ngeen ko fekk ñaari kupp ngeen indi ko waaye gaa yi nee nañu bi ñuy wàqi teen bi danari liggéey bi tax na ndoxum teen baa ngi xasaw xunn di niroog mbànd mu ñor mu ñuy suube couleur gi soppe ñu génne ko indi ko teg ko ci kanamu Moustapha Jibril na dara na cap wàcc saar bu ñu xolon subre bi falaq ñaata aaya la xolon subre bi falaq ñaata aaya la xolon subre bi naa si ñaata la juróom benn ak juróom ñaata la ñaata puso laa waxoon ñaata pas-pas laa waxoon waaw kay docteur bi ñëw na infirmier bu ñu wax jibil na dara jóge ci médecin bu ñu wax Mawlana tabaraka wa taala indil ko nag pikir bu ñu wax fàllax ak naas moo tax na bi ne na al muawisataan mubtada la dawaawun li kulli daay ci waxuma ma aw sa tey ni de déedéet kon ma fon lay doon tes ni suñ biif la ñuy rafaa yaa la ñu ne sobe di ko kasara andi am xam xaw ma bokk jël al muawisataan mubtada la ñu ne ah mu ne dawaaun li kulli daañ kulli nag istixraax la man jaaxle naa trop Seydi Muxtaar boo ko pharmacie bu toll noonu ku ko am ku toll ni moom yàlla analysé la ko wàcce ko ci médecin bu toll ni jibril nga dem deeti fay li ñuy wax ordonnance jaaxal na vingt décembre mille neuf cent onze laa judd de fii ma toog di wax ak yéen docteur Moussa Tine ak seen alxaaliqina fàlle xel naa si rek ci laa jàpp ndax na bi dane médicament la pour toute du maladie toute la wax tout kulli ji kulli istigraq la bàyyiwul dara bu ma wax diabète ci la bu ma wax tension bopp buy métti ndigaluy métti sedd tànk yu bañ kulli daa yi kulli al mu'awisatani fàlla xeeg naa si ñu ne waaw mu ne dawaa un médicament la kulli daa in ci bépp bépp bépp bépp maladie chez ça ma fa doon jël mag xam ngeen ne kooku fañ ko dugaloon loxo loxo loxo gën a mënu ko fa génne da ngay dem dégg ci docteur mu dellu wisit na ma daal gisuma du laa métti te ngay xaw a dee làq yooyu nag ki ko làq rek ko fa mën a jëriñ waaw da ngay feebar ba yëg na feebar nga docteur bi xool la ba tàyyi ne man daal gisuma lu la mitti yaa ngi bëgg a dee nag yow waaw koy mag bu nëbbee gone du ko gis ñuy indi këpp ki taaj jibril ci péem na qul a'uuzu bi rabbil falaq wëñ gi ne patar ñett mel ni jaan ju ñu gaañ patar ñett patar ñett ba fi ci benn boppam maliki naash ilaahi naash mu ne patar ñett patar ñett ba fi ci boppam min sharri waswaasi xanaas mu mel ni jaan ju ñu gaañ de wëndaalu ba fi ci boppam min sharri waswaasi xanaas lazi yuwaswisu fi suduuri naas mu fi ci boppam min al-jinnati wa naas mu fi ci boppam juróomi jeeg mu ne xolon su wéewu falaq benn pis pas fecc boppam min sharri ma xalaq mu fecc boppam wa min sharri xaasiqin iza waqab wa min sharri nafaasaati fil uqad wa min sharri haasidin iza hasad pas pas ci jeex ñu commencé ci puso yi nabi ne na buñ téyee puso di ko rocc ci siif bi day mel ni ci sama bopp lañ ko téye buñ nee puso nuus foog mu tëb na liggéey ba puso yi jeexee parce que sa fecceeku nanu ñu nabi dafa mel ni ku ñu jatanoon te tekk ko dafa tëb rek dafa tëb rek ne ah dara metteetu alaaji Maalik ne waqad saharoo jabaroo nañu ba jekko xayra walaa njol màkk waay wëy fa safaata safara bi ci moom tabibul atabaay docteur yi docteur yi wala ilaw buur yàlla doon la wakkilu moo jaru wéer fasam nañ ko abaanat loo abaanat loo yaadi bismi ana fatihan wa nadira jina madamani baaru bu leen baaru dafa guddi amaanat loosaatu yoon bismi mawdo bayaanan fasihan wa nabiy rajil mawdo malik amaanat loo jom président jom ndax yéen tam mootu lu bare bare bari ñëpp fekk waaw waaw man de waaye gars yi sama xaalis bi bàyyi ngeen ci seen xel de man de yàlla yàlla na mucc de. yàlla mucc waaw. abaana loo. dëgg. saatu yahud bi zammiha abaana bi zammiha saatu yahud. Seynabu binta moo laaj saaba yi seen sang bi ban yàpp la gën a bëgg ñu ne ko béy mu ne fu mu gën a bëgg ñu ne koy pàllankam càmmoñ pàllankam mooy li ko dalee ci mbagg mi jëm ci loos wi cër bu nabi bëggoon la ci yàpp mu invité ko ut béy rey ko fab poson roof ko ci ni ñu roofe jariñ ñu teg ko ba noppi mu poson ñulug ba ñu xaar ba mu bax mu faddali poson ba mu dem bay yekk wis ci poson bi upp ba mu sedd o Moustapha o Moustapha wis ci poson bi gaañu gàtt bu ñu rendi fekk wokk ñu fes ko ba mu set fekk wokk ñu tekk ba mu moo ko fekke wokk ñu togg ko ba mu ñor fekke wokk ñu def ci lu lay gaañ muy wax ak yow ne ko nëbb dugg rek raxasu ababacar raxasu na ko wane loxoom yor mu ne ko yor ba yadeke ya rasulallah fa inni masmoum attention dañ ma poson xaaj maalik ne waaw xam nga nëbb ci baaxaay ba mu ko ooyee def ko ne loolu xiir ci lii def ko ne ñaari yëf rek a tax kenn jubootul ak sa morom ñii dañ la gëm ñii bañ la ma doon seet ndax dëgg nga nekk ma fekk si la bu dul dëgg nga dee ñu noppalu parce que réew mi yëpp réew mi Allah moo mën a lay ah na bi ne ko baal naa la borom am see wax na ko borom kii daal wax na ko ceeb gi càncaay gi rëy na mais lay woo dafa rafet gisu la waa ji ma bu dool wa nettali ne day fa def invitation bu rëy daf ko wax ku wax nag mba njaboot yëpp dañ ko ragal ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw waa ji ñëw di wersi waa ji ñëw di servi di servi di servi ba toll ak buur bi mante bu weex bi mu sol tuuti ci ñeex mi taxar ci dal ci ko mu teen ku ne ko da nga def daal di oo ñaari sàndar ma ne nañ ko ne ñu génnee waa ji pour rey ko ñëpp ñu ne teg bi nga xamee ne wóor na ko ne ci dee la jëm daf na wëlbit fab la desoon sa ñeex ma sotti ko buur bi jàlla bi baag manto baag karawaat yaag yépp ko tooy na ko muy def nii waaw yow da nga dof xanaa mu ne déedéet dama la bëgg rek te bañ ko la xas soo ma reyee ngir toq bu bon bi toq toq si rek boo ma ci reyee ñépp ne da nga soxor waaye moo la sottee ñeex mi yépp su ma la reyee ku ko dégg ne moo yëy bañal la xëy rek bañal lay noonu rek ay rëyu noonu rek bañal la ko tax ma def la jëf ji mu ne ko yaa rëy tooñ te rafetu lay bàyyi leen ko mii bi shérif a ngi tàggoo waa kañ xaaj Malik ne na abaanat nettali na ku nettali saatu yahudi yi gàttab yahud ba ku mu nettali lahu Moustapha lu mu ko nettali bisa nihaay ci posan buñ ko posan ñu laaj alaaji ma def ko ko junj mu ne junj ko ko kat bayaanan daf ko ko wax wax boo xam ne dafa leer naañ rafiyan xam nga ne woon na bi njool màkk rajulu moo dem ponkal am ponkal mënu lay paase lu ñu togg ba mu ñor muy waxanteeg yow sërifan yi tàggoo moom sërif yu musa mi sëñ Abdou dégg naa sànq ci rajo muy wax di ko tudd nangu naa ci sëñ Alaaji Abdul Aziz Si mu ne fekk sërif taaxaa fi ñëwul ànd ak màkki saa di nuuru taal ak Cheikh Ndiaye ak waa jëloo ëmmatloo kilifa yëpp ñu fekk si ma campement ngi ko sëñ Abdou Diop di présenté waa dëkk ba nit ñi ba agsi ci màkki ne dégg naa ci sama gémmiñ ñi bàyyi xaaj Malick mu ne Maodo day sirifu kenn wóoru ko waaye yu musu moom wóor na ko ni sirif la mu ne alaaj Malick wax na loolu appale mooy maanaam sama xarit la nag yàgg nañu quarante cinq la ñu ànd dem màkk boobu maa ngi koy toppal Ibnu Malik ak maqamatul xarira ci yoon wi ba ni ñu dellu si moom nag comme tey guddi ajjuma la te yàlla wax na ci ajjuma lu mu waxul ci benn bis waaw wax na ko mais heure ci ajjuma boo xam ne jàmm bu dajee moom ne ko may ma ajjuma ajjana booy boo tëdd loolu neex defal boo dee ma yóbbu la ajjana ajja ajjuma ci la ñuy defar maam Adama waaw ajjuma moo tax mu am doole ci six heures ngoon la ñu liggéey maam Adama mais ajjana ajjuma it ci la àddina tukki ci lañ ko suñ coon ci lañ koy toxale ah mu ne ajjuma heure ngi ci boo xam ne jaam bu ca yem fekk ngay julli fekk ngay julli jooju nag sànq ni ñu bari te julli dafa yaa si kër julli la salaatu ala nabi julli la def yu julli la góor sama nijaay amula moroom soobee yàlla ak yonente bi day fexe la fexe ba bu muy génn nga gis ma de ba ma gisul day ba ma génn kaay ma jox sirif abi ajuma ërëm ci boo xam ne jàmm bu dajeeg moom na yàlla may ma àjjana soo yeboo lu la neex def boo dee dem àjjana ma sàjjan xam na loolu Sëriñ Jow xam na loolu gis nañu secret yi yàlla dugal ci ajuma ñu ngi ci guddi ajuma bi am déet dajanteeg muy boppu at yàlla moom daraam du màgget loo seen ñu di ko defaraat rek moomu ko loo seen ñu di ko réparé du yëfam defaraat nañu palais yi defar route yi defar kër commandant yi defar médecin yi defar waaye yëfam yi rapa réparé guñ ci benn ana kan ci yéen mos a ñëw ni asamaan si su suñu dëkk dafa daanu ci suñu nii kenn mosu koo gis ku mos a dégg ne jant bi dafa tardé huile bi manqué tey ñu doon ko defar loo soo ñu di ko defar juuf moomu ko te moom moomi na ma wér yàlla ni mu moomee wér waaw façon moom yi dafa bàyyi waaye bosama wér doo ma laaj ban ak ban ñu may la dina tax nga moom aja awa ndaw aram ndaw ak daayiram yal na leen yàlla taxawal te yokk daayira bi ak dawaa yi yëfi ne yépp bi jaayira solay ndaw adam waaw adam ndaw suma jarbaata ndeysaan ku bëgg alaaj abdu asis ak alaaj bu sax ak rasulullahi ak yéen ñii sama jor daal la ca Banjul waaw waaw ca Banjul man xam nga gën na ba ma àggali yàlla xam nga ni mu na mu moome yi mu moom aji sagar cuun ak ndey sii bi ndey sii bi sagar cuun yàlla na leen yàlla remplacer lu gën li ngeen joxe bi jaay rasulullahi bu baax lañu jërëgeen jëf waa ji liggéey ndo yonent bi de billahi présidente comité yi ak présidente yenn yi ak yenn yi ñu ngee doxal seen boor ba mu dox bu baax ndax dara bañ a tardé waaye ñu te ñu doxal bu baax ndax lu am ñu mën a am jàmm juñ ko jëfandikoo yàlla leen yàlla taxaw yàlla na mu moom xam nga na mu ko moomee jëng ñu may la da jur moom nga jënd nag moomeel la waaw kañ nga doon nit benn moomeel wéru ci nit jënd na ba tàyyi lëf ñu boole la kalaka jaay nga indi police am déet maye it borom bu jikko ji ñaawe bu ñu ñee nangu aji aram sàmb aji biiga njaay aji biiga njaay aji Faat Jóob
aji Faat Jóob daayira gaa yi kat ku ci ne junne nga joxe ñi nga xam ne dañu def dañu def dañu def sànn wert junne la yi ci biir enveloppe yi nag ma agri ma fi aminta ngom ak Faat Siise président ne ne enveloppe yooyu ñëw daayira yooyu ko joxe ñoo ŋànk coordination bi ñoom de lu ñu ŋànk mu dëgër ñii su soobee yàlla yal na leen yàlla yokk kattan yokk ko ñépp bi jaay rasulillah bés bi ngeen di dégg Fatimatu bint rasul ak doomi Cheikh Ahmed Tidiane yàlla nañ ko fekk ngeen tàllal seen loxo nu ñëpp sirif ñaanal nu nu continuer
Mother, man, man, man, man, yo.
كي أعيدك مدى مدى لدن نبينا مدنا إلى ما بعد مدنا لدنا للهوب مدنا لطيرنا مدنا لبدن مدنا لبيك مدنا نبي يفتاد قلبي بالفتون مدنا على هدم المواد بجاهد مدنا بدي بجديد لا مدنا وناجيني في الخيرات مدنا وكوني بالمحارم واجري ومنازل خير شريك ويا جميل كاتمتنا بلاد القبيل مدنا نهي قضيا وكنت مدنا هوادز من حديث في سجون مدنا ندامنا مدار الليلة مدنا يغير الهي قدر من كني مدنا وثرها فرقة كل ليالي مدنا فما يغفان في دار مدنان فنفدي موتى من بلاد مدنان وقد كنا على طيب القرى مدنان وخلنا وزمان مدنان مسلمة بلا دار الخرى مدنان وما كذب تبان الآن عدا مدنان ونحن أسر دار بلا تجمال جنان وكان بين مدنان بعضنا ساك أعدد وآخر مدنان وكنت أروم قدب مدنان حيبد بساك من حلم جنان جنان تداولني لماجمنا مدنان سوى سجي الحمام على الخصوم مدنان وذهبا قد واعد أن تسل مدنان فؤادي أو من الحنين مدنان وتفكر بي لبعد الوطن مدنان وما حلا بريئة مدنان لكم أبناء محل الحرام مدنان ودين الآب أخبار الذين مدنان مدى ما بان تبارك من قبور مدنان فساد سلسل البار مدنان نبي هل قريب لجنان سبي الله فوق القادر لجنان هو العرمان مدنان هو العرمان مدنان هو العرمان مدنان هو العرمان لجنان هو العرمان مدنان هو العرمان مدنان سبيه الوجه ساخر البيون مدنان منين يوم جاهد المنون مدنان منون خير الأداء المنون مدنان ونبتاه